ñoo ngi ñaanal ñëpp yërmaande suñu borom ak njëggalam barkeb Sëriñ ñu ciy jiital kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom li ko sàmm dolli koo aar may ko kàttan dolli ko mag ñi bàyyee mu di ko sàmm yàlla bu ci dara suut daan ko yóbbu fu gën a kawe fa mag ñi doon mébét yu barakat Cheikhul Xadim di yëkkati sunu kàddu muy kàddu fàttalante rek. mu jëm ci ay taxawaay yoo xamante ni mag ñi doon nañ ko taxaw démb ak bërki démb ngir mottuli yéene yi sëriñ Tuubaa ji eh, yéene joo xamante ne ni moom la yéene woon ci lislaam ji lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu yéene jooju yi mu amoon ci yeesal njaboot gi mu fi bàyyi waxtu ci nekk ñu di ko méngale ak jamono te du génn sunna mu bokk ci taxawaay yooyu yi naal wu mag wi nga xamante ni moo nekk Touba di jumaa ji di symbole bu gën a rëy ci luy màndargal diine lislaam di ndamal Sëñ Touba itam di ndamal Sénégal di ndamal Afrique ki nga xamante ni ni moom la yàlla dogal mu mag ci njabootam jëkk ko wuutu gannaawam moom la tege woon ci kaw aw loosam mu ànd ko ak njaboot gi ñim ko seqaloon di nasaraan si nga xamante ni nii ñoo niise woon réew mi ñoo amlante woon ak sëriñ bi ñooñi la seqaloon liggéey yi nga xamante ne nii ci jamonoom moom la doon taxaw mu bokk ci yoonu saxaar gi ginnaaw boo xamante ni nii sëriñ bi tàmbali na jumaa ji ci ak nekkam muy joxe na ndigal li mu jóge ci gimiñam muy ak bëggam ci dam dam sësin jox ko boroom daarul moxti mi nga xamante ni bi fi sëriñ bi nekk mooy jëwriñam ci lépp loo xamante ni ni euh, lu muy def lu la mu ànd ko ak njaboot gi ñu tàmbali liggéey boobee ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru safar ci Touba daanaka dëppoo rek ak 1925 vingt 26 mu mel ni liggéey boobee taxut mu yàgg lool ndax ci tabaski woo rek la liggéey ba arrêté ginnaaw nag boo xamante ne nii sëriñ bi jaare na ko foo xamante ni foofu la waroon a jaar muy demande autorisation boo xam ne sëriñ Mbàkke Bousso moo ko bind sëriñ bi signé ca dajale ab xaalis ubbi ak compte ci banque BAO loolu itam di lu santaane woon lu mënta ñàkk ngir liggéey boobu mën a am ca la sëriñ bi joxewoon woon laaj ñaar fukki ak juróom-ñett te waxoon ni képp ku aju ci moom na ko joxe ku ko mënut ka yor sa kilifteef na la ko joxel ca lañ dajalewoon cinq million yoo xamante ne nii ca lañ tàmbali woon liggéey boobu yi jumaa ju jëkk ji ñu ngi ko xeblaaloon ci barabub jullikaay bi jëm ca barabub sëñ Isaa Jenn ba foofu lañ ko xiblaaloon waaye fukki weer rek lañ ci liggéey am ay jafe-jafe diggante teleri yi nga xam ne mooy administrateur civil cercle Thiès te retraité ak Alter Bérard yi nga xamante ni trésor bu Mbàkke la doon liggéey ñoom ñoo doon chef de chantier yi ñoom lañ signaloon convention yi ngir ñu mën ko liggéey ginnaaw jafe-jafe yooyu nag ak yeneen jafe-jafe ci biir ñu suspendre autorisation bi nga xamante ni nii moom lañ joxoon sëriñ bi ci le 4 avril 1927 biñ demee ba ci le 19 juillet ci la sëriñ bi dem kon loolu ay jafe-jafe la yoo xamante ni gàllankooroon na liggéey bi ba tax mu taxaw waaye bokkoon na ci ay dénkaane yu sëriñ bi ak njaboot gi muy jumaa ji ci loo xamante ni mënta ñàkk am te waxoon na Cheikh Mouhamadul Moustapha ne ko sama loxo damm na ci na ci sa loxo damm. waxoon na ko itam ni ko defal naa la uh, sam xel muy sa ndigal lépp loo xalaat ci luy tax jumaa jaam am nga ci ndigal lu weesu tey bu ci waxateeg man ca la ko waxe woon itam ni ko isa ay xasat ko xuróobal ayda fa nabih la amiran su nam amir nag ab général la boo xamante ne ni dafa jàmbare woon lool ba ab buuram di ko tagg ni boo tëddee ba guddi say noon yee la neel pëkk pëkk amir ba mu dégg bur ba nga dem tëri te xam ne la ca war amir dana ko def sëriñ bi nag da ko yaway sama maamir moo tax ginnaaw boo xamante ne nii sëriñ bi ñibbisi na ci barab bu tedd bi di Touba sëñ Moussa yitteem jëpp mooy naal wi nga xamante ni moom la sëriñ bi naaloon te dénk ko ko nu muy def ba mu te bokk yi jamono jooju taxut mu yomb lool ndax yu bare bari benn mooy sëriñ bi dem na te mag ñi xam nañ coono bi ñu daj ci jumaay njaareem bi mu fi nekk mu door a pare te jumaa ji mu bëgg ci Touba su paree jumaay njaareem waañ lay doon ci moom kon moo koy gën a rëy gën ko rafet ñu te war koo def nag ci suuf soo xamante ni nii moomaguñ ko ci zahir mooy li nga xamante moom la doxalinu àdduna laaj suuf si jaaraleeguñ ko fa loolu itam bokk kon ci yitte yi nga xamante ne ni sëñ saa daf ko fabuwaale mu bokk ci itam ci ay gàllankoor yu ko tubaab yi tegal mooy matériel bi mu jàpp ni mooy liggéey jumaa ji seeni oto attanu ko te yoonu saxaar yu ak siwut Tuubaa te bopp mënu koo yanu kon yoonu saxaar du mën a ñàkk waaye yooyu yëpp ay gàllankoor la rek yoo xamante ne ni ba mu demee ba ci biir xam na ni yooyu yëpp mënoon na ñàkk te du tey jumaa ji waaye tubaab yi njariñ gu leen Cheikh Mouhamadul Moustapha amal ndax sëriñ bi waxoon na ko tubaab tubaab xalis mooy xalis rek moo mooy la ñuy jaamu boo ko xasee am foo leen bëgg a jaarale mën nga leen faa jaarale moo tax suñu Moussa daan wax ni doomu aadama yëpp mënees na leen a sol ci menn mbedd waaye mbeddum teraanga lay doon mbeddum teraanga rek ci nga mën a jiital ñëpp teraanga jooju nag la doon seqalante ak ñoom ba bañ giñ daan bañ ak pexe yiñ daan lal ak yooyu yëpp dem nañ ba amatuñ pexe ba sës xam ni ñoom ñooy jéem a gëstu luy ak bëggam ginnaaw bu ñu àggee foofu ak moom nag ak xam yitteem ci ci jumaa ji xam yitteem itam ci titre foncier barab bi xam yitteem itam ci yoonu saxaar gi lan ni léegi nañ ko ko may ba pare xañ ko ko nañ ko may jumaa ba pare xañ ko jumaa ñu nuñ koy may jumaa mu ni dañ koy defal autorisation parce que kayit la rek nga xam ni suñ diggante ak moom du yàqu ñu ni nuñ ko koy xañee ñu ni dañ koy teg ay conditions yoo xamante ni ni du ko man su ko defee moom mooy retiré wu te suñ diggante ak moom du yàqu ca ko tubaab yi waxee nag ni ko léegi moom d'accord nañ ci defaat ko autorisation bi yeesalaat ko waaye nag faw mu am yoonu saxaar ndax matériel bi nga xamante ni moo war a liggéey jumaa ji moom bopp mënu ko yanu te seeni oto attanu ko te yoonu saxaar gi ak siwut Tuuba Cheikh Mouhamadou Moussa daal di wax nag ni léegi kon yitteem jëpp mooy yoonu saxaar léegi teg na liggéey jumaa ji ci suuf waaye teewul nag mi ngi ci wàccaay ngir bu yoonu saxaar gi àggee rek mu mën koo song ci septembre 1928 it la tàmbali lijjanti bàyyi Touba ngir suuf si mën a lew dëgg la suuf si sëñ Touba ko moom ca moomuk azal moom la ko suñ boroom jox allahuma innaka xutta simaami ila l ardi allati nawaytu an abudaka fiha bil imaani wal islaami wal ihsaan fa banaytuha wa sammaytuha kon sëñ beeku moom waaye ci doxalinu àdduna nag ci wàllu administration moom faaw ñu jaarale ko fi ndax mooy tax bu ëllëgee ku mën a yilif itam doo fi amub sañ-sañ soo soxla aw yoon da ngay teggee ak moom waaye doo ko jaarale ci patrimoine yoo xamante ni njaboot ki ñoo ko moom ndax loolu lañ conseillé suñu Moussa ni ko bu fekkente ni nii suuf si lewaloo ko soo fi defee jumaa it bu ëllëgee buñ leen neexee mën nañ faa jaarale aw yoon ni la dañ koy toj te bu boobaa dañ lay dem dañ lay dédommagé rek moo taxoon mu jiital ko ba ci le 11 août 1930